fess na nak sa ñu fi téwé rek xol bu fess lañ fi jëlé di jégalu bu baax a baax. jërëjëf kii mooy Adja Aminata Soumaré rahmatullahi taala pratiquement ñoom ñooy maîtresse d'œuvre ñuy liggéey ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy taxaw ak kii nag moom volet social mooy volet social bi moom la jox lépp loo xam ne ci taxaw jigéen incha allah parce que yéen incha allah dinañ leen woo def benn assemblée générale yaayu jigéen ñu xoolal kii yaayu jigéen incha allah amina mu loolu avance loolu. alhamdulilah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نفتي في جتاي بتد مغربي في يرو تد مغربي نيان بروم سبحانه وتعالى مو فاي نيغا خامني ني باخ ليرو تاخاو ديري نيغا خامنتاني فاينا يالا دا فنا نكتو نيب او دوفان waaye wallahi azim amaana ñoom lañ cay def xaaj ba ñuy defuñ ko ci ndax ñoom ñoom ñooy jël ci seen poche di ko jàllale ci ci yaayu jirim yi ñu leen di wax nii liggéeyu taxaw njirim dafa doon liggéey bu màgg bu tedd boo xam ni bu ñu jàpp ni ñu sos association bi wala ñu ci ne rek ñoo ko moom ku mu neex tey incha allah nga bokk ci taxaw njirim naka nga ciy bokkee mooy lan mooy nga jël engagement ginnaaw bi nga yëgee ni yàlla subhanahu wa bi mu digee da koy def jaare le ko ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oustaz fàttali ko léegi ak asaatis yi fi jaar yëpp ñi man ak ki nga xamante ne mooy jàppale jërim kaxaa tey mu dendale ñaari baaraamam yu tedd ya ne incha allah ca firdawsil aala yéenay bokk ak moom dëkk bokk ana lan moo gën a nekk lii lan la nit di wut ci kaw suuf lu ëpp lii fay gu rëy gii te ñu xam ni amaana yeneen jokkukaay maanaam yeneen ibaadaat yi sax mën na bañ a yomb ci yow waaye jël ñaar fukk ba nga xamante ni chaque àjjuma wala saa yu jàppandee ci yow nga yónnee ko taxaw njëriñ ñu euh, fere la ko rongañ benn njëriñ amaana yàlla bu la ko nangu leen nga bokk ci kon loolu buñ ko xeeb nañu góorgóorlu takku ngir lan jàppale jëriñ yi comme ñu koy waxee tout le temps euh, jëriñ yi tout le temps dañuy yokk macha allah saa yoo xëyee ñaata jëriñ ñooy yokk ci lim bi te yàlla dogal na taxaw njëriñ euh, bëriwul am na ay partenaire waaye bëriwul yàgg nañuy tàllal loxo état mais suñuy kàddu yegg fa kon ñu ngi ñaan ñëpp ñoo xamante ne képp koo xamante ne rek mën nga yeggale suñu kàddu ci état ñu xam ne ñoom la ñuy liggéeyal ndax li projet de société la bo xamni ni mën naa ni état mo waroon taxawal ay kër ak ay kuréel yo xamantene ne jigéenu réew mi ñom ñokay jël en charge mais ba tey taxaw ji wuutu na leen foofu li soxla moy ñu appuyer ñu suñu projet phare nak moy lan moy inshallah tabaxal jirim yi benn complexe ci Fass Ngom am nañ fa 4 hectares 2 hectares yi moo nekk euh, euh, manam 4 blocs yo xamantene ne bâtiment bu mag la muy complexe bi. liñ fa yéene mooy yóbbu fa ay jirim yar leen fa yor leen fa ba keroot ñuy mën a seen bopp la ca topp muy yeneen deux hectares yi déjà commencé nañ euh, di ko def plantation euh, jëmbat nañ fa ay citronnier yoo xam ni mbokk yi ñoo ko joxe fii sabilillah jëmbat nañ fa itam doon nañ fa béy mbéyum noor te loolu tamit yenn saa yi mu yomb waaye yenn saa yi li ci ëpp jafe jafe-jafe la ñuy am ndax zone bi ñu koy defee euh, muy zone bi nekkee fële ca Ndar yenn saa yi ndox mi dafa neexul kon loolu yëpp sox euh, taxaw njëriñ soxla na ku ko jàppale ci loolu kon ñu woo ñëpp ci projet bu màgg bii mais nag dañu am ay ay maanaam ay yoon ay raccourci yoo xam ne mooy lan mooy lu mel ni korité wala tabaski wala ouverture des classes nga xam ni waajuru góor wa moo doon nekk ci naaj bi wala ci sedd bi dem di faggul ay njabootam ngir lu mu leen yoree ci maanaam suñu bés yooyu muy bésu ayit yi wala ouverture des classes mm, maanaam bu absenté wala bu fàq bu génne àdduna ngeen baal ma euh,